li ñuy waxtaanee dafa am solo. démb yow yaa ma njëkk a wax ne ma il faut ñu wax ci enseignant yi. bi ñuy terminer nga ne tey amuñu temps mais il faut ñu parce que il faut savoir ce qui se passe réellement. balaa ñuy fustiger balaa ñuy condamner balaa ñuy def dara lan la jàngalekat yi def. Mhm. ñaari jàngalekat yooyu lan la def. école boobu lycée boobu kenn sànniw fa woon xeer kenn sànniw ko woon dara ñaari enseignant ñoo jël responsabilité génne élèves yi ne leen dëkk bi dafa le Sénégal va mal. c'est suite à un rapport du proviseur du lycée mu envoyé ko au niveau de l'inspecteur l'inspection l'inspection bindaat ko tontuwaat ko ne ko laajal def leen demande d'explication aux enseignants ñu wax leen les raisons qui les ont poussés de faire ça mm-hmm. ñoom ñu tontu reconnaître les faits ñu bind rapport envoyé la hiérarchie ont-ils fauté oui ou no ils ont fauté mm-hmm. c'est ça la réalité ils ont reconnu les oui Non, c'est le contraire. Non, j'ai dit, le rapport technique ici avec moi. Ils ont reconnu les faits. Que ils se sont même excusés, ils ont fait leur meilleur culpa d'après le rapport. pourquoi non bàyyi ma terminer non dañuy waxtaan dañuy xam nga man nag euh, li nga may def nii da nga koy bañ. la koy def quoi n'est-ce pas. <laughs> donc lu tax ma ci doon wax c'est parce que j'ai fait tout le recoupement ba indi les rapports. lettre bi inspecteur bind rapport bi proviseur bi bind ba yor information yëpp téye parce que sooy wax da ngay wax ci loo xam preuve à l'appui suñuy collègue lañ li ñuy dund metti na mais dañoo tooñ parce que lieu boobu grève amu fa woon sànnante xeer amu fa woon c'est vrai la sécurité de la classe incombe au à l'enseignant au professeur à l'enseignant qui dans la classe la sécurité de la cour de l'école incombe au proviseur mmh. je suis d'accord mais su nekkee dafay am salle sànni classe sànni xeer ci biir école bi proviseur bi est le premier responsable de prendre une décision de libérer les élèves loolu la texte wax ak législation donc lieu boobu amuloon sànni xeer amuloon grève amuloon dara les enseignants ont pris la responsabilité de faire le tour des classes c'est ça que le rapport à dit le tour des classes pour génne élèves yi dix ans que dëkk bi dafa metti tooñ nañ enseignant ci classe am la war a professeur oui mais l'école est laïque et apolitique enseignant warul toog ci biir classe am di wax politique war na am na droit nag def politique mais en dehors de l'école jàngalekat ñun ñëpp ay jàngalekat la mais yow mii yaakaaruma ni ma la xamee doo toog sa biir classe élèves yi di politique di def ay déclaration politique pour convaincre des militants doo ko def parce que tu es à cheval des et des lois ci li ma yaakaar parce que xam naa la moo tax mu sañ a wax ci loolu donc jàngalekat bu toog ci biir classe di professé di conti di di def propagande politique fóote nga. ok ak fu ci mën a doon. ak fu mu mënti ci biir classe balaa xam ne ak fu mu mën a bokk ak foo mënti bokk dégg loolu wax dama ne. Mhm. l'école est apolitique et laïque. sooy politique da ngay génn ca biti en ah, dehors de l'école à tes crise loo ca def sa responsabilité la suñ la jàppee c'est pas dans l'exercice de tes fonctions lañ la jàppee fekk ñu la classe ngay joxe cours ñu jàpp la il faut faire la différence entre enseignant bi def manifestation di taxaw di taal pneu wala di inciter à nit ñi di taal pneu ak enseignant bi nga xam ne dafa taxaw classe di joxe cours ñaar ñooñu su leen jàppee bokkul suñu jàppee enseignant dans l'exercice de ses fonctions wallahi je serai le premier à parler je serai le premier ouais. non non non bu pareeguma ils leur temps de communiquer je le premier parce que jàngalekat la et je suis la quatrième génération d'enseignants kare lañ ma ngéntee man sama baay crée lañ ko ngénte sama maam crée lañ ko ngéntee kon man munuma ñàkk doon jàngalekat sacerdoce boobu ñuy wax sama deret la neex ku fi taxaw rek baa la gën a nekk ci table bi moo sama deret la nekk donc li ma gëm mooy ñun nañu def différence bi entre l'enseignant bi pratiquer classe am ak enseignant bi def politique ci biti man su ma demee ci biti di politique dem ci biti incité des jeunes à à à à la violence def nangam filmer sama bopp on a vu un enseignant qui l'a fait filmer sama bopp gaaw leen taal taal taal enseignant boobu il est irresponsable enseignant boobu il est irresponsable ci li ma jàpp am na ci droit nag parce que dafa far mais su ko defee ci biti suñ ko fa fekkee jàpp ko c'est pas dans l'exercice de ses fonctions parce que yaa dag-dag il faut ñu def différence question bi ñu concerné muy question bii jàngalekat yi dañoo tooñ